dal leen ak jàmm sant naa yàlla sant naa yàlla ki sant yàlla di Viviane moom mi waxoon ne moom mooy xaritu góor ñi mag ñi naan ko yaa ñu saf jigéen ñi ànd ak moom xale yi moom waxaale wuñ ko xolal ma yi leen nataalu Viviane bu dàq sa moroom nga ne bii la daanaka li olof njaay di wax naan alkaati du bàyyi dóor moom Viviane say su génnee ci seen publique bi rek daal di waneeti boppam taaram daal di fës fes fépp moom Viviane daal ku mu bokkal jamono bàyyi nga ko xel melokaanu taaroom méngoo lool ak colinam stilam bu rafet taaram bu jéggi dayo fësal saay su ne nekk gu mu nekk jigéenu africaine dëgg woykat sénégalaise bu simple yaatu di muñ saay su neex baat lool ba tax ñu bari sopp ko waxin bu neex doxin bu teey ak robb bu rafet Viviane moo ko moom fàttewuma benn yoon ay fantam oh ñépp xam nañ ni baatam neex na te woy dong lay def waaye ànd ak loolu taaram jéggi na dayoo li jaaxal ñu bari mooy lu muy gën di jëm mag taaram di gën a fës yaramam bi nes nesi saay ay salañ salañam du jóg ci di daaneel ay fansam dafa am cas am classe neex xool loolu ba tax ñuy laaj ndax ñi koy fekk ci soirée mi yépp déglu ko muy woy dong moo leen tax a jóg Viviane ma woon ñépp xam ko ba léegi wënneekuwul ndax taaram ba mu daan fësal ba jamono ji mi ngi des ba fi mu toll nii ay jaagar jaagareem bari na ay góor yu muy daaneel dëgg-dëgg daal la mu woyoon wéral na ko ndax newoon na man maay xaritu góor ñi mag ñi naan yaa ñu saf jigéen ñi ànd ak man ndaw ñi moom waxatuñu leen jërë ngeen jëf